ñu fàttali tuuti lan moo ñu tax xeex li ñu tax a xeex bu ci njëkk mooy tey senegal ndóol na ndóol goo xam ne ñun dañuy am gàcce at wu ne bu ñu génnee classement réew yi gën a ci Sénégal ci àdduna bi ñu ne fukk ak ñaar ci àdduna bi Sénégal ci la bokk te boobu jamono amul lu ñu yàlla desel ci koom waaye Macky jaay na lépp du pétrole du gaaz or du zircon du géej gi muy euh, jën gi suuf si lépp loo mën a xalaat fer bi phosphate bi lépp Macky sal jaay na ko te loolu ñëpp xam nañ ko bu ne mun nañ leen wax kan la ko jaay ci yan anan la ko jaay ak lan la ci senegal ñàkk ak lan ci senegal am mu jur ndóol gi ñuy dund te fileeg Macky Sall mi ngi fi ñun ñoo leen ko wax rawatina ndaw ñi dina métti trop ci yéen. Sénégal tey réew yi ñu wër yépp Sénégal ëpp normalement PIB mooy suñu doon natt koom-koom bi boo génnee Côte ci zone UEMOA bi Sénégal moo ci tegu waaye Sénégal moo gën a kawe ay njëg ci zone UEMOA bi daanaka Mali Burkina Niger ak feneen ak fereen foo dem Sénégal li fi ceeb di jar diwlin di ko fi jar essence di ko fi jar ak leneen ak leneen du jar foofu am na ci ñoo xam ne sax fii lañuy ñuy jaare ci pooru dakaar bi pour mun a yeggali seen marchandise sa suñu demee foofu ñoo ñuy gën a néewle njëg sénégalais yi sonn nañ ba fu sonn yem suñu yaay yi sonn nañu xale yi gàcce la ñuy am parce que dem ba toll ni nga toll sol mun a sol sa dàllu bàyyi te munoo joxe 1000 francs par jour ci kër gi boo ndekkee dañ la koo jox te nit ñi bëgg nañu liggéey sénégalais yi sonn nañu secteur économique yi munoo ci génne benn transport bi sonn na artisanat bi sonn na industrie bi sonn na maraîchage bi ak maraîchage bi sonn na agriculture bi waxi nopp napp gi càmm gi loo jël ci Sénégal foo tudd so secteurs yi nga xam ne nag ñooy salariés yi ñoom ñoo gën a deeti ñëpp a sonn Sénégal